بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ngeen gisee jataay bi ci kër Serigne Touba gi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji ju sell ji ngeen xam ne kon ndigal jóge na fa mu baaxoo jóge te mooy saahibul fadila al cheikh mohamadul muntaxa alxalifatul am di tarixatul muridiya jaar ci cheikh mohamadul basir mi nga xam ne moo yor kàddoom moom sëñ abdou xaadir ci sëriñ moodu mi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk lépp lu aju ci njàngub alxuraan mi ñu teew fii ci kër sëriñ tubaa gi ànd ak sëriñ seexum sëñ abdou latif mi nga xam ne koo xam sëñ muntaxa xam muy jëwrinam di ko teewal ci ay jataayam ak ci yu bëree bari li waral jataay bi nag mooy bu ngeen xoolee xar kanam yi rek da ngeen xam ne euh, am na lu xew te mooy bisub alquran bis bu màgg la nga xam ne Sëriñ Tubaa dundam gépp moom la bëggoon moom la fonkoon moom la daa deflu daa wax ne yaa kitaabal karim anta abibi wa xalili la kunta tabibi wax ne wàccaxal bi jaahil muntaxa ayaati rihayatul qur'ani sil ayaati muy kon bis bi nga xam ne grand prix euh, international Cheikh Ahmadou Bamba ñuy wax jaa isa Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul al alamiya lil qur'anil karim muy kuréel goo xam ne dañoo taxaw ngir di soññee ci alquran ci jongante ñu taxawal ko ci njiitul sëriñ Abdou Khadir Ñang moom sëriñ Modou Khari Ñang euh, mi nga xam ne mooy Euh, coordinateur général bi waaye nag ci jataay boobu nag sëriñ Modou Xabbaan mi nga xam ne moo jiita daara yi yabal na fi sëriñ Abul Baraka moom sëriñ Mouhamadul Basir moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne kenn ku ne xam na taxawaayam ci alquran muy jiite fale ca Masaalikul Jinaan ci weeru koor yi ngeen gis alquran ju neex jooju kon moom mooy wax ci turu sëriñ Modou Xabbaan mi nga xam ne mooy yore lépp lu ajo ci njàngum alxuraan mi te sëriñ bi jiital ko ci bi muy ñëw mi nga ànd ak sëriñ Abdul Fatah doomam ak sëriñ Mbacke yónni Mbacke ak sëriñ Jili Busa ak sëriñ Cheikh Ibrahima si waaye biñ ñëwee it mi ngi fi fekk bokk yu baax ñu ràññee ci sëriñ Saalihu Mbacke moom sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou ak sëriñ Ibrahima Khalil moom sëriñ Moustapha Habsa ak sëriñ ma mbay Ñang moo mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ Baara moom sëriñ euh, Modou Fadiama Niang mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Modou Fadiama Niang ak seen mag sëriñ Saalihu ñang ak sëriñ Xaari Jaxate ak sëriñ Jili Niang mi nga xam ne mooy yor coordinateur général bi ak sëriñ Alhaaji Fadulu Seck mi nga xam ne mooy secrétaire général bi ak sëriñ Jili Njaareem Niang xalifa sëriñ Modou euh, euh, sëriñ Cheikh Niang moom sëriñ Modou Xari ak sëriñ Massambaloo mi nga xam ne moo jiite coordina moo moo jiite comité bi ak sëriñ Mamour Kebe mi nga xam ne kenn la ci moom soxna Waalo kenn la ci jaayisa bi ak mbokk yi ñu àndal ñëpp ngir xataay waxtu wi incha allahu taala ngir bañ a guddal ci jataay bu am solo boobu nga xam ne moom lañ fas yéenee amal incha allahu taala mu war a tàmbali benn ñaari fan ci safar ñetteel ba ba ci ñeenteel ba nag nga xam ne mooy bis bu mag bi nga xam ne gone yi doon def jongante bi muy fukki nit ak juróom ñooñu nga xam ne ñoo war a génnee ci concours boobu ñu leen doon wax muy jaa'is Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul al-aalami al war a teral nag àllarba incha allah taala muy rabiu safar muy ñeent fan ci weeru safar dëppoog le 31 ci weer wi ñu nekk loolu nag ngir loolu nag danañ jox sëñ abul baraka mu wax ci turu sëriñ Modou xaban bu noppee danañ jox sëriñ xaari jaxate moomin mu wut mu woote ci turu daaree alxuraan yi ak euh, mu assasaat diine yi yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ngi yëngatu ci alxuraan ak euh, di liggéeyal sëriñ bi ci ak mboolem ñi nga xam ne ñooy tudoxu suufi yu nekk ci réew mi ñëpp waaye it danañ jox sëriñ alxaaji maam mbay ñang ndax kenn ku ne xam ne ne lii ñiñ ko waxe bi biñ ko xalaat bi mi ngi jógee ci kër seex Muhammadu Faajama ñang sëriñ Abdou Xaadir ñang di seen rak di ku jàmbaare di jàngalekat bu mag mu xalaat ko xalaat bi juddoo ci moom moo tax it incha allahu taala ci turu sëriñ Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne moo nekk ci jataayu seex euh, Modou Faajama ñang sëriñ alxaaji ma mbay ñang dana wax ci kàddoom su noppee danañ jox sëriñ Ibrahima Khalil Mbacke moom it mu wax woo bokk yi ahlu Mbacke ahlu mbusoo bi ak borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñëpp. buñ noppee nag jàmbaare lislaam ji nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ Mouhamadul Muntaxa di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif ku ko xam xam ne du tekk ak laxasaayam bu ko defee moom it dana soññee woote ci turu sëriñ bi. soññi bokki taalibe yi ñu xam ne kon bis bi insha allahu taala ngir bañ a guddal bokk yi bu ñu ñëwee liñ ca war a leeral lépp incha allahu taala ci taxawaaya ak lañ ca war a def lépp incha allahu taala danañ ko leeral kon bis bi mi ngi noonu àllarba lay doon incha allahu taala ci ñeenti fan ci safar ci kër sëñ Tuubaa ga ca Daaru naan muy bisub boo xam ne bisub alquran la kon ñi ngi sàkku ñëpp ñu teew ca ñëw ca te jàpp ci incha allahu taala kon ñu jox kàddu gi bokk yi ñu lim léegi incha allahu taala ñu jot ñu jot di seen i kàddu. aoudu billahi min acheytaan bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidi wa xabibi muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa asxaabihi wa asna xadimihi wa man wala mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu ci tuuru cheikh Mouhamadou Xabbaan ibnu cheikh Mouhamadou Fadal moom mi nga xam ne mooy al muwakkal li shuuni li shuuni fii ci Touba nuyoo booba xam ne nii noo ngi ciy jiital saaxibul fadila suñu sang cheikh Mouhamadinil Muntaqa xafidahu llah wa raa di ñaan sama borom subhaanahu wa taala mu yokk ko kattan zahiran wa batinan guddal aw fanam lool ba naal yi nga xam ne naal na ko ci lislaam ak ci al insaaniya suñ boroom defal ko tawféex ba mu eggale ko ba tàmbali yeneen di ziyaare mboolem koo xam ne nii yaa ngi diglu annonce bii nga xam ne annonce jàmm la man nañ ne moom dong sax mooy annonce jàmm ndax ci alquranul karim la jëm di leen nuyu ci turu sëñ Mouhamadou Xabbaan moom mu yabal ñu fii ñu ñëw di wax ci kàddoom te tuuti ci lool ànd ak doomam sëñ Abdul Fattah sëriñ Jiiri Bousso ak sëriñ Mbàkke yónni ak sëriñ Ibrahima si ñooñu ñëpp di niti alquranul karim ñu fekk fi niti alquranul karim kaddu yi sëriñ bi nag ginnaaw ba mu jiitalee ziar bu tedd boo xam ne ni da koy jëmel ci saaxibul fadila ak mbooleem koo xam ne nii yaa ngi jàpp ci liggéey bi nga xam ne liggéeyu alquranul karim la tàmbalee ko ci sëriñ jiili moom mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak mbooleem ñi topp ci moom ñoo ngi nuyu mboolem adduna te di ñaan sama borom subhaanahu wa taala suñu kàddu yi fekk leen ci jàmm sëriñ bi nee na moo ngi am mbégte lool ak xol bu sedd lool ci xew-xew bii nga xam ne moom lañ jëm te niñ ko waxee woon léegi sëñ bi nga xam ne moo doon tàmbali wax wax ji junj ko muy jaaiza cheikh ahmadou bamba al aalamiya lil quran al karim ñu war koo def rabia safar mooy ñeenti fan ci weeru safar wi ñu jëm jaaisatu cheikh ahmadou bamba nag bu ko waxee lu yàlla yàlla la ndax mboolem adduna foofi dem nit ña ña ngay def lañ man ci yittewoo alquranul karim ak di ko sàmm luñ man di woo ay doomu aadama ñuy jóge fu nekk ñu leen di taxawal ay jongante ngir soññu leen ci alquranul karim loola nag ña koy def dañuy wane seen yéene ci alquranul karim kon nag rawatina bu fekkee ne boroom alquranul karim nga xam ni ma waxoon ne sama borom may na ma alquran doon loo na ma alquran sarax na ma ko mboolem lu nit di moomee alquran rek boromam defal na ko ko kon kookee yàlla na lool ñu tabax ñu taxawalal ko ab jaayisa boo xam ne nii aalamiya lay doon bu bokk ci jawaïs yu mag yi kon sëñ bi nee na mi ngi ishaada lool lii nga xam ne mooy jaayisa bi di ñaan sama borom subhanahu wa taala ñu àgg ci jàmm te lépp loo xam ne nii luñ ca def la suñu borom nangul ñu ko te am nañ yaakaar it ne dana ko nangu ndax moom kañ koy defal di cheikh ahmadou bamba radiyallahu wa nafaana bi jaahihi léppam la sama borom subhanahu wa taala nangu kon lépp loo xam ña ngi koy def day mel ne nga fekk borom géej rek nga sotti sa potub ndox ne ko nañ bokk na ko cheikh abdul ahad radiyallahu anhu daan waxe loolee du doon ak ñàkk faw kon ñu ngi ci woo ñëpp di ci soññ mboolem taalibe yi ak mboolem julit ñi te xam ne mbir la mu baax moo xam ne nii day jëme réew mi kanam ndax alquran lépp lu ca laal rek luy jëme réew mi kanam la waaye luy jëme adduna bépp kanam la ndax mooy leer gi nga xam ne moom la ñu suñu borom subhaanahu wa taala andil ngir mu man ñoo gindi teg ñu ci yoon kon bu fekkee ne wooteel nañ ko dajale ndaw ñi ngir ñu ciy jongante jongante boo xam ne ni bu tedd tedd la loolee kat lu mat a bàyyi xel la kon sëñ bi nee na mi ngi mi ngi rafetlu bu baax ak sant ak gërëm lool jaayise bi di ñaan sama borom subhanahu wa taala mu yëkkati ko faw waaye it di soññaat bu baax a baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñoo yor madaarisul quraanil karim yi ak mboolem ñi nga xam ne yoruñ sax ay daara waaye seen yitte day alquranul karim moo xam dañ koy jàngale moo xam dañuy taxawu ña koy jàngale waaye moo xam dañooy dañoo dañoo bëgg alxuraan rek waaye amuñ ca benn amuñ ca amuñ ca nen luñ koy doxe waaye dañ koo bëgg rek te yàlla tax ñëpp mi ngi leen di soññ di leen woo ci jaayise bii nga xam ne mooy jaayise Cheikh Ahmadou Bamba ngir ñu fekke si ko loolu fekke ga soññ lay doon ci gone yi gone yi nga xam ne ñoo ca bokk ak ñi ca bokk bokk waaye gone yi nga xam ne it bokkuñ ca waaye it ñi ngi ci daaray alquranul karim yi loolu ab soññu la ci ñoom dana tax ñu gën a bëgg alquran dana taxit seen yitte gën a kawe ci alquran dana taxit seen i jikko gën a rafet ndax alquranul karim mooy rafetal jikko waaye it mu ngi sonn ñu sëriñ daa sëriñ daar yi nga xam ne ñoo yor gone yooyu te di leen yar sëriñ bi neen mu ngi leen soññ bu baax a baax a baax ñu gën a góorgóorlu baaxa baax ci gone yi xamal leen musaabaqa dëgg-dëgg yi musaabaqa lu mu ndax kat am na musaabaqa bu gën a tedd gën a kawe boo xam ne ni ëllëg ma ñuy ma xaar ci kanam suñu borom subhanahu wa taala boo demee bañ naan la iqra warqa warattil kama kunta turattilu fi dunya kon képp koo xam ne nii yaa ngi ci adduna war ngaa bàyyi xel bu baax a baax musaabaqa boobee musaabaqa boobe nag am na lu koy xañee fii ci adduna mooy rubba taalin lil qur'aani wal qur'aanu yal'anuhu loola yonent bee ko waxoon sallallahu alayhi wa sallam nit dana nekk ci adduna yittewoo alqur'aan lool waaye ëllëg du ci am dara ndax yu bëree bëri yum cay boole yoo xam ne mënu caa bokk kon mi ngi soññaat ñi nga xam ne ñooy borom daara yi ñu gën a bàyyiloo xel gone yi ne leen musaabaqa yii ñuy def kat soññu leen ak ñaax leen ak defar leen lañ ci juglu waaye bu ca kenn dugg duggin woo xam ne danga nga dugg ngir adduna loola mi ngi am nee na loola mi ngi koy loo sëriñ daara yi bu baax a baax a baax a baax ñu xam ne kat gone yi dañ leen a bëgg defar moo tax ñu leen di taxawal jongen ñu leen di taxawalal jongante yii ndax buñ ca buñ ca dee jongante di mokkal alquran di ko rafetal ci wàllum tajwid ak mokkal ko waaye ak di ko bind ndax musaabaqaat yi bëri na ni ma ko ni ko ñëpp xamee Sénégal musaabaqa du fi gan yu bëree bëri mi ngi fiy am yoo xam ne tabaarakallahu ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yokk lool yi musaabaqa bind alquran ak tari alquran ak lépp mi ngi fi am waaye bii nag day boo xam ne nii moom dafa spécial ndax Cheikh Ahmadou Bamba ki nga xam ne moom la ñu war a taxawalal musaabaqa nag ki ñu war a tuddi dëgg-dëgg jaayisa nag moom lañ koy doog a taxawalal kon waaye nag ga bii moom spécial la boo xam ne ni buñ mat a fonk la kon gone yi ñu ngi leen ci soññ bu baax ñu gën a xam ne wala sëñ daara yi sax lañu wax ñax ndax ñoom ñooy yar gone yi ca loola ñu xam ne musaabaqaat yii ak jongante lay doon goo xam ne seen ëllëg lay tabax xëy na nag alquran moo am barke barke bu yaatu boo xam ne ni lu ne mën na caa juddoo ndax kitaabun anzalnaahu mu mubaarakun mu la suñu borom njëkk a wax waaye li yadabbaru ayaati yi dooga ñëw kon képp ku ci nekk ak noo ca mën a nekk rek xamal ne sa dund day barkeel faw xamal ne sa sa sa sa ëllëg day barkeel faw waaye nag bàyyi waala xel sa borom subhanahu wa taala lu ci ama ama am solo la sëñ bi nee na mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi bàyyiloo xel bu baax a baax baax ñi nga xam ne ñooy sëñ daara yi ñu gën a góorgóorlu ci loolu waaye it mi ngi soññaat bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy taxawal musaabaqa bi di leen di leen di leen gën a encouragé ci musaabaqa yi ndax li muy def ci réew mi bari na lool te adduna bépp it ñi ngi taxaw ngir taxawal yu mel nii ni ma ko waxee woon ci ginnaaw léegi lañ ca jublu doonut lu taxawu alquranul karim ak taxawu ñooñ alquranul karim kon ñi nga xam ne ñoo taxawal musaabaqa bi it sëñ bi nee na ñu ngi leen di ñaaxaat bu baax a baax a baax di leen xamal ne it nag yoon waa ngi noonu seen kanam mi ngi ànd ak ci zaahir ak ci batin lépp loo xam ne nii lu ci war la mi ngi ciy ànd ak ci népp nu ngeen ko ci woowee ndax moom kat ba ñu koy dénk lii di mas badaa'isul quraanil karim yi ginnaaw bi fi magam ju tedd ja jógee cheikh moom sëñ sëñ Mamoor Mbàkke radiyallahu anhu joxaat gi nga ko joxaat jubluwuñ ci dara lu dul rek xam ne alquraanul karim des ko war a taxaw lu dul rek xam ne am na foo xam ne nii mënees na faa mënees na faa xencoo ak taalube mënees na faa xencoo taxawin woo woo xam ne dañ ko taxaw alquran woo xam ne nii mën na mën naa mucc ayib moo tax ñu sëriñ bi doyloo ko woo ko ba mu ñëw mu dénk ko kon moo tax kaddu yi mu ne ma naa ko yëkkati jëme ko ci mbooloo mi soññaat leen bu baax a baax a baax ci lii nga xam ne moom lañ yëkkati te mooy musabaqatul quranul karim bii nga xam ne mooy jaayisatu Cheikh Ahmadou Bamba ak yi mel na ñoom yëpp loo xam ne lu yëkkati alxuraan rek mi ngi ciy soññewaat bu baax a baax a baax waaye mii ñaan nag suñu borom subhanahu wa taala defal ñu ndimbal bu baax baax a baax ba lépp loo xam ne ni luy nuru kooj la lépp loo xam ne ni luy nuru luy ayibal la lépp loo xam ne luy nuru luy gàllankoor la ci liggéey bii nga xam ne moom lañ bokkandoo suubandoo ñun ñëpp suñu borom musal ñu ji wa ma dalika ala allahi bi aziz kon maa ngi wàcce sama kaddu fii sëñ bi lim ma waxoon naa ko wax ëppoon ëpp na lii waaye xëy na jotaay bi da ko dul maye ak ñun itam suñuy kaddu néew lool suñu xam-xam gàtt waaye lam ñu waxoon ëpp ko kon lu ci manqué rek ci ñun ñii la waaye moom la ma waxoon wees na lool ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfeex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 muy gone yii nga xam ne ñoom la jaaisatu Cheikh Ahmadou Bamba al alamiya lil quraanil karim euh, dajale woon tànn ca ñetti fara ya fara bu nekk fukk ak juróom incha allahu taala ñaari fan ak ñetti fan ci safar mu war leen a dajale ci kër Sëñ Tuubaa gee ca daarul ma naan ak ànd ak lajnatu taxkiim bi ñu déglu leen nga xam ne bis yooyu bis yu ubbiku lay doon ni ko sëriñ bi sàkkoo di sàkku ci mboolem sëriñ daara yi waaye donga yi nga xam ne ñu ngi toll ci di jàng alquran ak soppee alquran yi ndeyi daara yi ñëpp ñu leen di woo ñu fekkee si jataay ya ndax buñ duggee ci weeru safar am ay ayaam quraan ya eh, gone yi di tari fekke si gañ koy fekke si lu am solo la kon incha allahu taala ñaari fan ci safar mel na ne bu juróom-ñeenti waxtu ak genn wàllu jotee saal ba ca daarul mën naan buntee dana ubbiku eh, lajnatu taxkiim tàmbali di déglu gone ya naka noonu ca ñetteelu fan ba suñ suñu àggee ci ñeenti fan ci safar nag eh, kilifa yi muy ndawi sëriñ bi ñi nga xam ne ñoo ko fay teewal ak kilifa yi dëkk bépp ndax lu ñu def ci alxuraan njabootu sëriñ bi lañ koy defal ànd ak eh, bokk yeeg wala yi ñëpp ñëw teewee ko ñu xam ne tey Tuuba ñooy teral ay ndawi alxuraan di leen teralal sëriñ bi kon loolu ñi ngi ci woo sama mbokki sëñ daara yëpp fu nit nekk tey ab sëñ daara bis ba sa bisa laj na bi daf la caa nekkaloon laj na kim daf la caa nekkaloon laj na tansim da la caa nekkaloon waaye moom sëñ daara yi ñoo ci jiitu di ca woo it ndayi daara yi seen bisa nañ ca daan taxawee ña nga leen cey séentu di ci woo soppee alquraan yi incha allahu taala bàyyiwuñu Euh, di ca gën a bégee bu baax nag kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ñuy tudd sëriñ bi di leen tudd bis booba ñu koy defal sëriñ bi muy bisub alquran euh, seenug wettili jataay ba dana ko taaral lool dana ko euh, bégal lool kon loola it ñu ngi leen ci soññi bu baax a baax a baax a baax di bàyyiloo xel it yi mooy ñi nga xam ne ñoo war a bokk ca tari ba ne fuñ ne weeru safar feeñ na ku ca ne foo fanaan bu bët setee rek xëyal wut si Touba daarul mën naan ci kër Sëñ Touba ga su fekkee yaa ngi ci dëkk bi boo fanaanee bu bët setee rek xëyal dem muraafiq kenn ku nekk dana am kum àndal gone yi tari ku nekk am na kenn kum war a àndal suñ dikkee incha allahu taala ñu dalal leen fa di leen toppatoo ba ku war a tari tari bañ àgg ca ñeenteelu fan ci safar nag incha allahu taala bu ñu xëyee juróom-ñeenti waxtu ba weti ñetti waxtu incha allahu laj na tansim ngi ci lépp danañ ko def ànd kook kilifa yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi yebal ànd kook autorité yi nga xam ne wax nañ leen ko ànd kook silk diplomatie yi nga xam ne ñëpp euh, commission bi dem nañ ca wax leen ko kon ñëpp ñu ngi leen ci seen tuuti di leen jox rendez-vous incha allahu taala euh, le 2 ak le trois safar waaye la 4 safar nag di jëmmi bis ba ci boppam yàlla dañ ci àgg ak jàmm te weesu ko ak jàmm te bi amati ca ndam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ay rabbil alamina ñu dellu sant yàlla bu baax sant sëriñ Touba. ñaanal sëriñ Muntaxa Basiiru sëriñ Touba yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi nga xam ne naalal na ko sëriñ Touba mu àggale ko ci sagoom moo ku ku ko yéene ak ku ko bëgg a ànd moom ci barkeb sëriñ Touba di yëkkati suñu kaddu ci ndigalal Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Ñang xalifa sëriñ Modou Fadiama Ñang mu boole maag sama kilifa gii mu àndal muy sëriñ Saliou Ñang ak suñu rakk jii muy sëriñ Jili Abdou Khadir nga xam ne moom mooy pilote programme bi ak suñ doom ji ñu ànd muy sëñ Jili ñang di taawu sëriñ Cheikh ñang mi nga xam ne moo toogaloon waajuram yë fanweeri at ak nangam ci boppu njaboot gi sëriñ bi nag wax na ne wax ji daanaka dañ ciy barkeelu rek ndax moom ab taalibe sëñ Tuubaa la xëy na kenn ci njabootam ci moom la soqi ko moo tax ñu ñu am sañ-sañu ñoo di ci wax ci ndigalal njabootu sëñ Tuubaa gi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw njaboot ga nag bu ñu tuddee Serigne Cheikh Abdoul Latif mi nga xam ne moo fi toogee jotaayu Serigne Mountakha Bassirou te grand prix bi nga xam ne moom la ñuy def grand prix Cheikhul Khadim la kan mooy Cheikhul Khadim ci kaw suuf mooy Cheikh Mouhamadoul Mountakha kon mën nañ cee bañ a guddal ay kaddu ndax su ay waxi Serigne bi day dugg ci biir waxi ndawal Serigne Mountakha muy Serigne Cheikh Abdoul ndax moom nee na day feddli ak taalibeem di yeesal ak njëbbalam ci kanamu sëriñ bi rek ak di ko gën a dénk njaboot gi rawatina nag sëñ Abdou Khadir nga xam ne moo jiite liggéey bii mook bokki ak lu wàkk sëñ Tuubaa yi ma ko seqal di wax la daal dafa bëgg bu ñu àgg ci ñetti bis yooyu ñeenti ñu wax képp koo xam ne boo xëyee boo xëyee jëm fa na nga fas ñaanal sëriñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba li mu bëgg a liggéey sëñ mu liggéey ko te yool bu fa am ak tuyaaba ju fa am lépp dañ ko jël jox ko addiyee sëriñ Tuubaa sëñ Muntaxa mu tegal ñu ko loxoy sëñ Tuubaa te aaju ji fa waay indi yàlla na ko yàlla saafara bu dul aaju ju naqari yàlla di wax na it sëriñ Cheikh sëriñ bi neen mi ngi lay sant bu baax ca taxawaay ci njaboot gi ak liggéey bi ndax liggéey bi bu diis la waaye woyof na toyyu ngir sëriñ bi moo ko woyafal ndax sëriñ bi ko daana wax ne am na nopp yoo xam ne aju ju dugg faju keroog ba xibaar bi duggee ci noppi Cheikh Mouhamadou Mountakha la mel ne mbir ya ko bu tege ci mbartal gaaw na sotti na rafet na sell na kon alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ñu ko yàlla fayal te bàyyi ko fi lu yàgg ñu ne ci ginnaawam ci barkeb sëñ Tuubaa loolu la sëriñ bi waxoon ne naa leen ko wax la cay toppaat sëriñ Jili def ko yaatal ànd nañ mu dem ca monsieur le maire Abdoulaye Ka léegi laa jokk moom wax ko ko bañ ko waxee la cay wërteefam def na ko ci jëmmi boppam la koy lay wërteef it ci wàllu commune bi def na ko wax na ne ma léegi ne ma waxal ma sëriñ Cheikh nee ko damaa bëggoon a ñëw waaye biñ ne ma sëriñ Cheikh Abdou Latif mi ngi fi rek la sëriñ Saliou waxoon waa kër sëriñ Tuubaa fu ñu dajee ka fa nekkal sëriñ Tuubaa rek bu waxee maa ngi ci biir wax jooja wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. salaamaaleykum wa yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Mountakha di jëmam ci jataay bi <coughs> di ko yóbbante ay nuyoo ci sëriñ bi ak di ko ay ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko. mel ni lii mbokk yi yi fi jiitu wax rek moom lañuy ñuy li ñuy wax taw tawkiir rek lay doon te mooy lii eh, yëfi sëriñ bi la muy alxuraan eh, sëriñ bi eh, wax na ne yàlla may na ma alxuraan may goo xam ne may guy sax la malakanil xuraana tamlikan yadoom kon suñu ko wooteelee alxuraan ci dëkk bi ngir soññ gone yi ñu gën cee góorgóorlu yëfam lañ jël euh, delloo ko ko euh, mu mel ni nag kon li ci indi muy génn dëkk bi ak di génn réew mi mooy sëñ bi yëfam li ñu ko waxee day alamiya loo xam ne àdduna bi yëpp dañ ko bokk lakin onaadi kullal bilaadi lakin onaadi kullal ibaadi réew yi ak peuple yëpp la woo lakum xitaabiya ahlal asri jumlatakum moo tax kon lu ñu koy defal lu mën a yem ci réew mi lu mën a yem ci dëkk bi waaye àdduna bi yëpp lay génn moo tax kon ñu ngi ci woo ñépp muy àdduna bi yëpp jullit ñëpp ndax alxuraan jullit yëpp ñoo ko bokk waaye ñu ngi ci woo itam waa réew mi yëpp muy yeneen tarixa yi ak yeneen kuréel yi ñëpp ñoo xam ne daal seen yëf la Euh, ginnaaw bi nga xamee ne maanaam ñi ngi koy defal sëriñ bi fii ci dëkk bi ginnaaw li ci ëpp solo euh, ñi jiitu leeral nañ ko ak yi ci aju dañuy tënk foofu rek di ñaa ñu àgg ci ak jàmm mm, yàlla da ci tawféex danañ ko séentoo lépp mu amee noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi bokkal jataay bu tedd bi noo leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha nuyoo bu ànd ak mbégte ak xol bu set ci teddaayu jataay bi ak Pastef bi nga xam ne moom lañ fi gis ndax li nga xam ne mooy li ñu fi dajale dafa am solo lool rëy lool ci Serigne Mountakha ndax Serigne Mountakha moom ni koy waxee rek lépp loo xam ne ñi ngi koy defal sëriñ sëriñ Touba daa jàpp ne moom loola moo ko war a taxaw moom lañ koy defal fépp fu ñuy liggéeyale sëriñ bi itam mu jàpp ne fu ñuy liggéeyale sëriñ bi fu ne moo fa war a jiitu moo war a jiitu liggéey ba lii nag nga xam ne moo waral jataay bii bokk ci liggéey yi nga xam ne dara da ko ëpp solo dara gënu ko rëy ci liggéey Serigne Touba ndax jëm diggante Serigne Touba ak alxuraan ñii fi jiitu wax nañ ko waxee nu rafet te doon rek la demee diggante Serigne Touba ak alxuraan nu nekk Serigne Touba waxee na ni kit alxuraan waaye nag baat boobu yi mu waxoon na nag man la kenn alxuraan tam li kenn yëdoom dafa mel ne loolu moom mooy toll ci di gën a feeñ di gën a firndewu ndax fu alxuraan nekk wala fu alxuraan rafete day dellusiwaat sëriñ bi bi nga xam ne sëriñ Saal sëriñ sëriñ sëriñ xaali ñoom ñii andi ndaw yi demoon bitim réew te gañe lañ fa gañee ak ñi ko gañee ci biir réew mi ke demoon Dubaay ak ka nekkoon Sénégal faneen ak faneen Côte d'Ivoire fu nekk kenn ku nekk ndam la ñu indil ko Serigne Touba ci Touba kon day firnde wu ne Serigne Touba mooy borom alxuraan ku ne it xam Serigne Touba alxuraan ni mu ko ittale woon nga xam ne boole koog dara mu la def muy léppam ni ko waxee ni ko waxee boppam kon kuy liggéeyal Serigne Touba di ko liggéeyal ci alxuraan mel na ne yaa nga ca la ko gënal. sëriñ Mountakha mi itam noonu rek la demee ci alxuraan bëgg alxuraan lool bëgg ñooñ alxuraan lool te di leen ci xeertal di leen ci jàppale ngir bëgg ñu gën koo bëgg gën koo yëkkati mboolem ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci alxuraan ku fa ñëw wala ñu àndandoo ci mbooloo ñëwit da ngeen yëg ñu mu leen baral loxo yitte ju leen jox sëñ xaalis mii xam na ci dara ak kuréel bii ànd ak sëñ Modou Xabaan ci liggéey bi yëpp te ànde woon ko sëriñ Maamoor noonu nii nii na ko sëriñ Abou Baraka waxee fu ñu mas a ci liggéey bi sëriñ Muntaxa dana leen won yitteel gu ko liggéey bi yitteel ak na ko alxuraan yitteele dem na ba ci buñ nekkee ci mbooloo mi ñu nuyoo lu mu bari bari bu ñeendee gone goo xam daan di kaamil ànd ak waajuram wala sëñ daaraam gone ko lu mu tuut tuut lu mu sori sori bu ñu ko joxee téere bi dana bàyyi la doon def téye téere bi dana laaj ko bind ñu andil ko ba ci kanamam mu ubbi téere bi xool ko bég ca lool ñaanalaat ko ko def soññi ko kon loolu ak bëgg ak yittewoo fi la mën a yem kon lépp lu ñuy nasaat wala ñu di ko doxaat mu dellu ci alxuraan sëriñ Mountakha lañ ko defal li ngeen def itam muy bis bii ginnaaw nag dañ koy defee fu ne ki ko ki moom alxuraan moo ko gën a yeyoo dañ koy defee ci Dubaay dañ koy defee ci Dakar nañ koy defee Côte d'Ivoire fu mën a doon ki ko moom moo ko gën a yeyoo moo gën a yeyoo ñu defal ko te defal gañ koy defal itam képp kuy kook Serigne war nga caa yëg ne kenn warul laa jiitu ci jàpp ga ndax mbir ma ndam am ca loo xam ne kenn du nattam leen Serigne Touba mooy borom alxuraan kon bis yi nga xam ne dañ ko bëgg a tëral jaarale ko ci yoonu rafet wii ak ni ngeen ko nase ak ni ñu ko yaatale lépp ñu di ko segg muy ñëw di ko segg muy ñëw ba war a daje ci dëkk bi war a àggale segg gi ak sellal gi ak dëggal gi lépp dëgg ñu def ko xereñe ko ba mu teg ci yoon mu war a tege ba ñu xam ne ñii ñoo jël ndam li <coughs> ñu neexal leen ne loolu lu rëy la te li ci ëppar solo mooy li sëñ aboo doon wax léegi sëñ daara yi di xamal donge yi yii lim leen mën a jariñ ak lim leen mën a jural ñuy gën a bëgg alxuraan di gën a bëgg man alxuraan di gën a bëgg sellal alxuraan buñ leen ci gën a xéer dana leen dimbale ndax nit ki lu mu bëgg dana ko yittewoo bu ko yittewoo wut ko yàlla mën na ko caa dimbale ba xéer leen bëggloo leen ko dafa ci am solo lool te lii li koy loo gon yi da cee bokk kon sëñ daara yi nii ko sëñ Abo waxee ñu xamee ne seenub liggéey da cay bokk bëggloo gone yi alxuraan ci boppam buñ ko bëggee rek sonn ci te buñ ko sonnee buñ te sonnee danañu ko am te loolu dana doon seen ndimbal loolu kon loolu nañ ko bàyyi xel waaye seen jiili yéen itam lii ngeen di def nii te xam ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci alxuraan rek ngeen ci jublu di ko defal ci dëkkam bii ngeen xam ne benn liggéey gën koo rëy dara jiitu ko ci luy maye ngërëmu Sëriñ Tuubaa ngërëmu Sëriñ Tuubaa rek lañuy yittewoo kon ne na sëñ Mountakha mi ngi seen kanam ndax moomu liggéey bi mm-hmm. mi ngi koy ànd ak yéen ñun ñëpp it koy ànd ak yéen foofu waaye mën a nekk ak nam ci mën a jàppee ak nam ci war a jàppee mm-hmm. lañ ci mën lépp danañ ko def man mi sama wàllu bopp mm-hmm. kon kenn laay doon ci yéen koo xam ne ci ñuy yor liggéey bi lay doon ñu yor taxawoo lay doon jekk nañ ci di leen déglu fu ñu fi mën a toll ak lépp lu ñu ci war a def looloo lay danañu ko def ndax lii suñ ndimbalun ñëpp son njariñ la ñëpp waxuma barkeb yëngu ci alxuraan ni mu amee njëriñ barkeb liggéeyal sëriñ Tuubaa ni mu amee njëriñ waaye sun njaboot yi nga xam ne lii ci ñoom la jëm ngir nu itam xiir leen ci lu baax ak bëgg loo leen alxuraan war naa tax nu favoriser lii ba xale yi xam lii lim leen di jëriñ dana leen dana tax mu yitteel leen kon nag mbir maa ngi noonu moom dañ koy bàyyi ci loxoy borom muy sëriñ Tuubaa ndax mooy sàmm sàmmam yëfam yëpp yëpp moo koy sàmmal boppam moo cee def ndam moo ci def lañu bëgg waaye Serigne Mountakha mii it ni ma ko waxee mi ngi seen wet ne seen kanam ne seen ginaaw ànd ko yéen ay ñii di ndawam it nu ànd ak yéen loola dañu rafet njort ci ne ndam rek a ci am dañ ci bëgg rek a ci am sotti rek lay def ba rafet rek lay def barke rek lay def jëf ñu sant ñëpp digale salaamaaleykum kon mbokk yi woote baa ngi noonu yéen a ko déggandoo ci kilifa yu tedd yooyu yëkkati seen kàddu di soññee ci bus bu màgg boobu kon ñuy yeesal di ñaanal Cheikh mun Muntaxa xalifa saral di murid suñ borom yàggal ko fi te wéral ko waaye di sant Cheikh Mahamadul Basir moom Cheikh Abdou Khadir mi nga xam ne moo yor kàddoom te mbir mi it di mbiram mu def ko muy mbiram ba mu tàmbalee ba tey waxtu ci nekk mi ngi ci jokkook ñun jiitu dugal kàddoom ba loolu tax moo tax mu boole ko ci comité organisation de màggalu Touba ngeen xam kon bis bi mooy bis bi nga xam mooy bis bi ubbi màggalu Tuubaa ci ci alquran mooy jaay isa Cheikh Ahmadou Bamba alalami alquran karim ñu war ko amale ci kër Sëriñ Tuubaa ga ci Daaru Marnaan incha allahu taala bu weer wi teroo ñaari fan ci safar ñetti fan ci safar nga xam ne ñaari bis yooyu incha allahu taala dañ ciy woo sëriñ daara yi ak donga daara yi ak ñi nga xam ne ñoo yor ñooy téyal gone yi bu ko defee buñ demee nag ba bi rabiixu safar ja muy ñeenti fan ci safar bu ko defee nag woo nañ ci nag kilifa yi diine yëpp tàmbalee ko ci kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada waaye tàmbale ko ci waa kër sëñ Maamor Anta Sali tàmbale ko ci sëñ Maamor Jaara ba ci kër sëñ Masamba waa Mbusoobe waa Afe mbokk seex yeeg ñëpp képp koo xam ne daal Serigne Touba boo woote woon da nga wuy si na nga xam ne kon lii na ngeen wuy si ndax naka jekk alxuraan mbirum sëñ Touba la daa daa nañ ko wuy ji waxtu ne waaye nag lii day mbirum sëñ bi ndax daa tàmbali ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi ndax jaa isa Cheikh Amadou Bamba al alimi li kenn kon mbirum taalibe yi la mbirum jullit yi la kon kenn ko ne na nga ko def muy sa yitte bu ñu àggee ci bis ba incha allahu taxalaa na nga ñëw sol sa mbubb teew ku ma ne lu man nag indaale ko ñu neexale ko gone yooyu ñu xam ne xale yi sëriñ bi lañ ñoo xam ne bu fi sëñ bi nekkoon moo leen di neexalal boppam kon ñun ñi nga xam ne ñooy ay taalibeem di ak njabootam kon la ca war ñoo ko war a def ndax ku ma sa mokkal alxuraan ci sëriñ bi boo indee ab kaamil kenn ku na xam ne ne boo demee wa nga bokk ca umma ba nga bokk danga danañ la ñee kon nag gone yi nga xam ne nag gone yi sëñ Tuubaa lañ Cheikh Mouhamadou Mountakha ci boppam moo ci njëkk yëkkati kàddoom njëkk ci soññee ci ta jaar ko ci Cheikh Mouhamadou Basir bi nga xam ne mooy moo yor kàddoom incha allahu taala te bu ñu àggee ca bis ba incha allahu taala moom mooy ñëw teewe bis ba teewal fa sëriñ bi ak njabootug sëriñ bi ñi ñu woo ñëpp kenn ku na xam ne nag ku kilifay diine yi da nga woo kilifay aada yi ndax ñoo seq njaboot gi kon li tàmbalee ci président de la république euh, monsieur Macky Sall ñu ngi koy woo jaar ci ministre de l'intérieur ak ministre de jaar ci gouverneur de la région bi nga xam ne moo nekk ci réseau du Diourbel ak préfet ak sous-préfet ak monsieur maire bi nga xam ne suñ Mame Mbaye Niang doon dañ ci wax léegi ci kàddoom te moom muy liggéey ci conseil bi di ànd moom ñu koy sant bu baax ci taxawaay waaye nag di ko soññ ci taxawaay yi jub si ay taxawaay yu ca war rek loo xam ne maire bi war na koo taxaw mu taxawu ko bu ko defee incha allahu taala mboolem député yi nga xam ne ñoo ne ci département ak nekk ci réew mi ñëpp ndax kenn ko na ne jaa isa bi al alamiya la ñuy wax maanaam international la ci àdduna bépp lañ ko seqal incha allah taala ci tàmbali gi nag ñu xam ne Serigne Touba ak mbiram ni mu yaatoo nga xam ne daa war daj àdduna bépp moo tax bi comité bi toogee ñu xalaat ne kon édition bu njëkk bi dañ koy tàmbalee invité ñaari pays bu ko defee bu déwénee ñu invité waan ñeneen moo tax ren ñu boole ci Mauritanie ak Burkina Faso donc niki noonu lañ koy defee ba ci àdduna ba Makka ak ñëpp rek incha allahu taxalaa daal bis ba ku fa ñëw bu fekkee alxuraan neex na la boo ñëwee incha allahu taala da nga fa dégg alxuraan neex. ci gone yu taj taj taj wit bu neex da nga fa fekk it waa kër Serigne Touba ñu teew fa kon yaakaar naa ne bis ba daal ku fa ñëw li li lay ñaanal suñ borom faj sa aajo euh, te ñu àgg ci ak jàmm te sëriñ bi nangu ko te ñu ko def kon xam naa ñu tàllal loxo yi sëriñ bi ñaan bu fekkee fàttiwuñ dara sëriñ bi wajal bi jaayil muntaxa xayaati